jërë ngeen jëf ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci seen ànd ak dakar animaux point com ñu ñëwaat euh, ci seen euh, beneen numéro boo xamante ni ñu ko jëblee ci wàllum euh, yar di aviculture ñu ngeen ne bi yëpp daanaka mën nañoo wax ne ñu ngi woon ci xaj yeeg ci nag yeeg ci bëy yi mais gis nañ demande yi bëri nañ internet ñu bëree baree bëri du ñu wax ni waxtaan leen ci wàllum ginaar ndax am na activité la boo xamante ni Sénégalais yi léegi jeunes yu bëree bëri jigéen yu bëree bëri maire yu bëree bëri bëgg nañ cee dugg parce que gis nañ seen activité vraiment fructueuse mais naka lañ siy duggee mooy seen problème euh, à chaque fois nit ñi ñu si ñu ngi jéngu di si dugg ndànk-ndànk mais saa su ne dañuy gis ne euh, mortalité yi day bari des fois emplacement poulailler bi duñ ko xam nu mu demee entretien bi duñu xam duñu xam nu mu demee tey ñu am chance je bi je dis bien ñu am chance da dajanteeg benn technicien avicole nit koo xamante ni vraiment xam-xam dafa màcc ci wàllum ginaar yar ginaar du début à la fin euh, bu defee noonu ba noppi nag daal jox njóobeen yi njóobeen yi xam seen xam-xam daa màcc ci wàllum lekk <laughs> loolu moom waaye gis na gis na commencé production bi daal ba keroog ñu koy mën a jëfandikoo xam-xamam ci la màcc macha allah muy un jeune boo xam ne vraiment très doué très très très dynamique et que nangu aussi partager xam-xam bi ak ak ak ñun yéen ñi bëgg a dugg si wàllum ginnaaw ma ngeen siiwul émission yi étape par étape incha allah rabbi chaque semaine dinañ dinañ leen indil benn étape si processus naka la ñuy yaree ginaar. élage ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm d'abord bu baax a baax a baax ginnaaw buñ ñu la nuyoo euh, di la di la remercier encore ci sa temps bi nga xam ne jox nga ñu ko. waaw asalaamaaleykum euh, sëñ Babacar yow moom suma sëriñ nga avant tout mais ñu ngi lay euh, sargal yow tamit yow mi nga xamante ni yaa yombal li lépp je m'appelle El Hadj ñu gën ma xam si Good Friend Mbaye dans le domaine avicole et sunu pourkis nag fi ñu jaar mooy jaar na si Bamba et bi ñu génnee foofu tamit ñuy def suñu stage euh, euh, centre euh, national avicole de Mbao defaat na fa tamit benn formation après dem si àll bi jaar nañ Zalaar jaar nañ tamit Taset si ay grande entreprise xëy na tamit comme li nga wax en même temps conseil euh, d' élevage dañuy conseil ñu bari ñuy def élevage yaa ngi gis sama ginnaaw rek euh, kii euh, bi mu commencé yàggul ñu ngi koy entamé di ko jàppale si bépp côté ah ñu lay dalal fii tamit di la wax ni dalal ak jàmm incha allahu rabbi d'accord jërëjëf tey élage bëggoon yarum ginaar ñu bare bare bari Euh, dinañ wane ginaar gu noppi ne la ginaar kat yar nañ yar naa ko am na 2 kilos am na 3 kilos donc yar ginaar baax na yomb na mais duñ la nangoo wax ban yoon nga war a mën a jaar ba yow mi nga xam yaa ngi dëkk Tambacounda te xëy na amuloo moyen woo benn technicien comme yow mu mu nga fay ko mu gérer la sa poulailler mais à travers émission yi ñuy def xëy na ñu mën si déglu seetaan aussi ba xaw mën a tegu ci benn yoon. tey processus bi fan la war a mën a commencer pour nit nga xam ne bëgg na dugg ci wàllum yar ginaar. si euh, sëñ gar xëy na su fekkee nit ki mun na mun nañ ko jàppale parce que dafa am ñoo xamante ni dañuy wax euh, dañoo yor poulailler am ñu yor ferme. Euh, parce que ñaar ñooñu faaw ñu distinguer leen. am na ñoo xam ñu ngi élever si petit à comme tey fii nii ñu ngi élever petit à mais am na ñoo xamante ne tamit yor nañ benn fond bi euh, bëgg dugg mais amunu ku leen mun a jàppale si domaine bi pour ñu mën see dugg léegi euh, poulailler balaa nga kaa balaa nga see dugg faaw nga am loo si xam parce que lépp loo mun si dugg si àdduna faaw nga si am ay notion yoo xamante dina la mun a parce que dugal xaaye si si secteur bi faaw nga dem jang secteur bi tuuti sax même fekkee xamoo si dara pour waa yi ngay dénk ëllëg sa bande euh, bu la dara di nga dakor silim d' lim la la wax parce que xam amna lo ci xam mm-hmm. bu la waxé lu jaadu di ko di ko d'accord bu la waxul lu jaadu tamit di ko d'accord mm-hmm. mais euh, bala bala ñuy euh, nit ki di mëna démarrer bande fa mu am bâtiment wala mu am poulailler ah, fa nit ki am poulailler les poulailler bobu tamit bu fekkee ñi nga xamanté né dañuy yar au delà 1000 demi parce que suñu euh, code daf ñoo wax si domaine élevage mënuñu 500 euh, sujets mën nga ko yar ci benn environnement comme ci biir koñ yi mais au-delà 500 sujets da nga war a jénn ci àll bi parce que euh, am na yenn maladies yoo xamante ni day transmettre di dem ci nit ñi di jóge ci ginaar yi di dem ci nit ñi am yoo xamante ne day jóge ci nit ñi di dem ci ginaar comme grippe aviaire. Euh, boo xoolee moo tax. au delà 100 200 300 400 500 ba nga ko yar comme fii ñu nekk exemple mën nga fay yar benn 500 sujet léegi nag pour ñu pour ñu yar ko mën nga bu bu yow mi nga ni a secteur bi mhm. mën nga defar benn poulailler bu yam mhm. boo xamante nga démarré avec 50 euh, sujets une caisse mhm. wala avec 100 sujets euh, deux caisses euh, poulailler bi nag dafa am ay normes yu ñuy tabaxee poulailler waaw normes yooyu euh, dafa dafa bari bu fekkee ki nga xamante ne day élever lu bari danaan si agglomération c'est-à-dire que dem si àll bi mais si bu mais tamit bi na accessible na accessible ba nga ni dina fa a yomb parce que mënoo di dem di wala il euh, tamit bu fekkee am na mën na gàllankoor sujet yi balaay poussin yi yegg mën nañoo sonn stressé kon dafa war a doon lié boo xamante lié bu accessible la beneen bi tamit mooy war am ndox bërëb boobu war am ndox bu baax tamit day wala def fi def bâtiment bâtiment euh, fermé bi wala fi sa parce que bu day ndox boobu si suuf di taa soo defee ko comme période soddu wala période nawet da ngay gis ni am na tàngaay buy jug buy juge si suuf. di dégager bu bokkul ak tàngaay ginaar te nee naa ginaar c'est 42 degré la. d'accord 42 degré kon chaleur am na chaleur buy dégager ak chaleur ammoniaque bi ak puis chaleur ginaar bi mun na mun na empêcher euh, croissance su ginaar bi si lu bëree bëree bëri kon batiment dafa am ay normes. ginnaaw bi nga bi nga tabaxee. Mhm. danaan la da ngay tabax deux rangs après li des mën nga doon grillage mhm. mais. grillage comme du doon nii comme tey ni ñu gisee sunu poulailler bi des na parce que fii dafa waroon am ération fii am ération nga xam vide versailles lay doon c'est-à-dire que air bi dugg fii di dugg fii am na ñoo xamante ne tamit bu dee les grandes euh, fermes la da ngay gis day am benn entonnoir si si kaw pour ñaari air yi des fois ñu dégager. Euh, tase mais tàngaay bi daf koy daf koy ñoom ñaar suñ dégager mun na leen a bañ a gis. mais mm-hmm. air suñ suñu tasee nii. Mm-hmm. day dégager si internaute daal di jénnaat après renouvellement d'air daal di am. internaute mooy li mel ne genre genre genre forme néegu ñax ba pare am am ay espace ci ci kaw. Mm-hmm. loolu mooy internaute waaw mooy moom la ñuy si kaw mu mel dafa am néegu ñax mais si kaw euh, ni muy mel noonu am na tamit lu mel ni ay auvents. ay auvents vent yo xamanteni bu taw di ñew du fa dugg da teewul aération bi dina jéne fofu même tamit bâtiment bi sokoy tabax bu féké défa nga grillage ba paré mhm. day gis ni war nga défal ay vent mhm. auvents vent yo xamanteni c'est à 10 mètres pour taw bi mu baña am accessible si si si si si biir bâtiment bi wala rayon solaire yi nga xamante ne comme tey fii ñu toog nii. am na ay quelques rayons solaires yu dugg parce que auvent yi euh, duggul liwul carrément guddul carrément. les auvent yooyu tamit dafa bokk si li nga xamante ni mooy tax poulailler yi nekk si normes yi. d'accord d'accord loolu pour xëy na ñi nga xamante ni ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi yor ay entreprise yu mag a mag mag lañ mais tey euh, sama classe gi nga xamante ni xëy na euh, ay élèves lañu ñii ñi ay marchands ambulants lañ te bëgg nañ. peut-être que am benn benn yenn bénéfice ndaw bëgg nañu mu yokk ñu bëgg investir tey si si si ci wàllum ci wàllum aviculture di yarum ginaar tey ñooñu poulailler boo xam ne war nga ko mën a def ci kaw terrasse nan nan la war a mën a mel c'est-à-dire que yan euh, aspect yoo xam ne boo ko boo ko boo ko amee rek war nga mën a war nga mën a def élevage waaw sëñ Babacar xëy na damay sawar tontu si sa question bi euh, euh, te damay encourager jeunes yi pour ñu ñëw si secteur bi ñu maa ngi gis nag ñu ngi ñu ngi daw tuuti mais nan ñëw euh, secteur bi jafewul dañ koy waxtaane man ak yow sànq c'est-à-dire que bu fekkoon kër gu nekk mu ngi yar ginaar mën na yomb à tout moment mais kër gu nekk yarul léegi nag li nga wax nii c'est-à-dire étudiants yu ndaw yi nga ñi nga xamante ni ay étudiants lan di gagner seen bourse des fois mën nañ koy épargner buñ demee ba am benn somme bi ñu ñu tabax benn benn case boo xam dina mun a jël benn benn cinquante sujet hmm. bu ñu amee départ ñu départ si hmm. mais fur et à mesure boo defee benn bande ñaari bande hmm. après nga commencé di yokk sa euh, taux de production di yokk 100 après 150 cinquante mais fur et à mesure di nga dem ba euh, di yar benn nombre bu bu bu bu mag a mag si sa si sa si sa kaw terrasse te kaw terrasse bu fekkee am na euh, yaatuwaay li ñu fa soxla espace bi ñu fa soxla sans dépend si parce que nee naa la batiment muy dépendre si nombre de sujets bi mu fa bëgg a dugal. Hmm. waaw muy dépendre si nombre de sujets bi mu fa bëgg a dugal. tey jii nii bu fekkee xamal nga batiment bi. Hmm. dañ naan day dépendre selon longueur batiment bâtiment bi mooy dépendre si largeur du bâtiment bi. Hmm. mais largeur bi moom mënul dépasser six lay doon six six six mètres lay doon entre six mètres douze mètres mënul dépasse mënul kon longueur batiment bi mooy mooy conditionné. ñaata sujet moo fa war a dem. Hmm. sujet yi tamit yow faaw ñu xam yow mi nga xamante ni yaa bëgg dugal ay sujet faaw ñu xam ñaata sujet nga bëgg a dugal si bâtiment bi nga xamante ni moom la la waa ji bëgg a war a tabaxal. Hmm. pour ñu xam nan la ñuy tabaxalee bâtiment bi longueur bâtiment bi ak largeur bâtiment comme tey su ma bëggoon a dugal exemple. benn 2000 hmm. sujet. mun naa def longueur longueur bâtiment bi mun naa def benn 30 30 mètres de longueur. largeur bi ma def benn 7 mètres bu ko calculer da ngay gis ni euh, respecté nan densité bi. dañ ni densité dafa am ay normes cest à ñu ni euh, mètre bu nekk dafa war a jël am na ñoo xamante ne danaan trente sujets lay jël am ñu ne quarante sujets lay jël hmm. mais fur à fur à mesure du du bande bi bu ñu demee si âge adulte hmm. dañuy gis ni am na ñuy def mètre carré bu nekk dix sujets hmm. am na ñuy def neuf sujets léegi nag foofu dañ naan ñi nga xamante ne dafa tàng dañoo nekk si moment soddu wala ñu nekk si zone boo xam ne c'est zone soddu ñooñu dañ naan ñuy mètre carré bu nekk 9 sujets. pour réduire tàngaay bi. bu fekkee dafa sedd ñu def mètre carré bu nekk par 10 parce que tey bu ñu demee extérieur dañuy gis ni ñoom mètre carré bu nekk ñuy def 22 sujets de chair. parce que foofu moo gën a sedd. parce que foofu moo gën a sedd te seddaay si ngay gën a amee poids bu baax si ngay gën a amee rentabilité si ngay gën a amee yar bu baax mais ki nga xamante ne daal moo yor poulailler. Mm. si kaw terrasse am. Mm. lu mu am mun na départ. 10 ginaar baax na 20 ginaar baax na. 30 euh, ginaar fur et à mesure ngay gën di dem fur et à mesure ngay gën di dem. waaw d' accord gis nañu gis nañu euh, Sénégal fii la plupart si kër yi euh, seen day nekk maanaam dañuy gis koo xam ne day tabax ci suuf ci kaw paa bi tabax na ko àgg gut te paa bi kuulee ko mais ñi bëgg a profité xëy na wala kuule nañ ko mais pareegul daal ñi bëgg a profité def fa def fa ba seen élevage. te néeg yi ay 4 sur 3 lay nekk wala 4 sur 3 50 wala 4 sur 4 mètres carrés. est-ce que loolu mën nañ fa yar à peu près lu tolloog cinquante cinquante ginaar wala cent waaw si si ni nga ma expliqué ay 4 mètres 3 mètres loolu mën nañ fa yar 100 sujets. Mhm. ba 50 sujets mais du ko du ko du dépassé. Mhm. mais mën nañ fa yar ay 100 sujets ba 50 sujets. parce que foofu noonu comme li nga wax rek des fois bari même bu ñu duggoon ci quartier yi da ngay gis ni. Mhm. comme li ngay wax nii dafay am c'est-à-dire am na ko par exemple tabax na ci kaw. mais yeggalewul. moment boobu des na fa def euh, euh, élevage. benn activité élevage boo xamante ni euh, dina ci gis boppam. bu boobaa day def ay modification rek fenêtre yi lay def ay grillage def ko mais foofu xam nga mënu am norme bâtiment bu baax mais mën na ko modifier ba nga xamante aération bi nga xamante ne moom lay soxla si phase croissant bi sujet bi dina ko am dina mën a dem dina mën a dem am na ñoo xam ne xëy na amuñ ñoom terrasse mais ci suuf lañ nekk est-ce que ginaar parce que gis naa ne fii dafa am kopp et tout ça te loolu xëy na ci pare ñu ngi si bâtiment bi est-ce que ci suuf ginaar mën na nekk ci suuf maanaam sable bi est-ce que mën na mën nañ fa yar ginaar waa si suuf mën na fa yar ginaar effectivement mun na ne man boo si sama si sama si sama si sama xalaat si sama xam-xam bi ma jot a jot a def mm-hmm. parce que suñ xoolee as aswapalsi bi bi nga xamante ne ni moom lañuy jëlee ICS mm-hmm. wala sooy dem euh, euh, sooy jénn jam ñaajo mm-hmm. mooy fi ñuy wax euh, alukaaj je pense am na am na ñuy benn saabul bu weex booy booy booy gis foofu en général boo fay jénnati dee ko seetlu léegi loolu suuf la aquapargique boobu suuf la mais dañ koy defal sujet yi ñu siy nekk. léegi suuf suuf bi mun na nekk parce que suuf dañ naan dafa baax si tànk sa doomu aadama bi. mu mu hmm. koy bu gëjee dëgg si suuf mu des fois mu mu summi dàllam mu dox si suuf. parce que am na lu mu koy lu mu koy traité hmm. même que si ginnaaw nag la gën a baaxee parce que tey li tax mënuñoo def suuf boobu. ñoom ñu ngi xalaat ëllëg suñuy def décap décapage di dindi di dindi litière bi léegi suuf bi day diis ndox bi si tuuroog gaaw a taq be xëy na loolu moo tax duñ ko si def mais suuf bu fekkee set nga yow mën nga mën nga mën nga mën mën nga satisfaire ni lii mën nga ko rassurer nii mën nay set à tout moment wala à tout moment siy def suuf muy gën a set hmm. ginaar yi mën nañ nekk dund ba jeex xëy na expérience boobu dinañ ko def ak yow nga koy gis si kàttanu hmm. borom bi incha allahu rabbi hmm. d'accord des fois ma ay pulaay yoo xamante ni day mel ne gars yi dañuy créer exemple ventilation euh, loolu loolu est-ce que lu si am solo la parce que benn sama benn rakk neen moom dafa bëri xam-xam naa ma damay fexe ba dem foo xaman ni même lu mu tàng tàng mën naa jël ay ventilo def ko si mu am air est-ce que même air boobu la c'est-à-dire que est-ce daal mën nga fexe def ay ventilo wala genre yooyu ba air bi dugg. waa loolu mun na ne. parce que li tax ma ni mun na ne bu ñu xoolee bâtiment fermé yi. Mm-hmm. soo si duggee tey dafa am ay ay ay ay euh, euh, palier yoo xamante ne tey dañ koy def si si si si largeur du bâtiment bi. Mm-hmm. les paliers yooyu noonu mooy renouveler mooy renouveler euh, aération bi nga xamante ne mooy nekk si batiment bi. moom day aspirer jël dugal si biir batiment bi. Mm-hmm. léegi am na benn benn benn benn tonneau bu nekk si biir si biir euh, bâtiment fermé yi nga en général di nga di nga dugg ventiler c'est-à-dire mais. li tax bâtiment kese la température bi nga comme tey bu fekkee dañoo dem ay Tamba exemple. Mhm. ay tey boo satisfaire parce que bu dee bâtiment fermé dafa am ay ay ay ay euh, euh, nu nu du nu ma ko mën a tuddee c'est-à-dire am na ay palier palier yooyu comme genre clim la dañ koy tijj suñ ko tijjee dangay gis zone boobu day day day sedd moo tax tubaab bi da koy xaaj en général day xaaj batiment bi côté bi mu def ko ay ay euh, mu tijj ko def ko def ko ay clim Mhm. les les crime boobu mu ko def patkulin yooyu mu def mhm. da ngay gis ginaar yi bu moment croissant bu jotee si bâtiment fermé yi mhm. day jógee fële te fale nee naa la ay palier mooy nekk mooy nekk ci euh, largeur du bâtiment yi di renouveler aération bi mais da ngay gis sujet yëpp dañuy daw fi nga xamantene ni fa la euh, euh, euh, kilim bi nek fa fa la parkuline bi nek fa la sedd bi nek da nga gis ñom ñepp fa la dajalo di dem te kenn du len wax fi la mais bo gisate mu xaw a rira température bi xaw a delluwaat si guddigi da nga gisaat ñom ñu delluwaat si bâtiment bi nekkat en règle d'accord d'accord donc donc bâtiment bi ben moment da ngay soxla mu am tangay ben moment nga soxla mu sedd mm-hmm. c'est à dire que fi soxla tangay si bâtiment mm-hmm. comme phase démarrage mm-hmm. dañuy soxla tàngaay parce que ginaar yi seen yaay gisu gisuñu seen yaay mm-hmm. faaw ñu créer leen yaay mm-hmm. léegi yaay boobu noonu mën na doon chauffage mm-hmm. mën na doon bu fekkee mën na doon radiant bu fekkee ñi ne dañuy utiliser comme euh, bâtiment ouvert yi. Mhm. mais bu dee bâtiment fermé chauffage lay doon quoi. Mhm. te chauffage bi dañuy gis ni euh, essence moo koy moo koy daw su dee bâtiment fermé mais su dee bâtiment ouvert dañuy gis gaz dañuy wut. Mhm. daa si def lu ñuy wax radiant radiant boobu di chauffer sujet yi. léegi 500 sujet bu nekk dañuy recommander nit ki am benn chauffage. ak deux deux bouteilles de gaz wala trois bouteilles de gaz parce que gaz boobu mën na une semaine mën na mën na mën na jeex léegi wala ngay chauffer si guddi bi gaz bi jeex boobaa yaa ngi lor yaa ngi lor sujet yi te poussin yooyu noonu jàpp ne sujet yooyu noonu si phase démarrage. suñ Babacar. phase démarrage si nga mën a amee mën nga waat ni si laa amee dinaa am 30 jours dinaa am kilo bu baax. d'accord si phase démarrage mën nga waat ni 30 30 jours dina am kilo boobu 35 jours dina atteindre 1 kilo 500 wala 1 kilo 600 wala 1 kilo 700. parce que moi tax phase de démarrage bon, nag nga war see sonn si 7 jours yu njëkk yooyu noonu. Mhm. nga nga tëj bâtiment bi. du am benn aération du am benn colandère boo xamante ne mooy dugg si bâtiment mhm. mais des fois mën nga jël nga euh, ngay renouveler air bi parce que tamit waxul la nga tëj sujet bi kese. Mhm. muy tàng. muy tàng. des fois war na ñëw nga sentir benn genre xeet ammoniaque. si biir war nga sentir ni. am na am na nget bu bon boo xamante ne mu si biir nga aj bâche bi tuuti. Mhm. air boobu jéem beneen aérage daan ñëw renouveler aération boobu nga xam ne moo tax. Mhm. Euh, man expérience bi ma si sàcc. Mhm. maa ko essayé sama bopp cest à dama jël ay saaku xottu saaku. phase démarrage ma ma tëj ko sama sama sama poulailler. bi ma ko tëjee damay gis ni xottu saaku yi dina tàng. même man su ma sofee dina tàng mais xottu saabu boo xoolee am na ay tudd yu ndaw yow nag mën nga koo bañ a gis tudd yooyu mais muy air bi muy dugg muy génn léegi damay sentir ni ammoniaque du ma sonal benn benn kii du te teewul air bi dina renouveler d'accord d'accord d'accord gis naa fu mel ni par exemple xam naa fa laa koy jeexale ci wàllum pulaay parce que wax naa leen ne semaine bu nekk insha allah élage euh, may nañu loolu dinañ dinañ dinañ def ak moom benn rubrique dinañ fexe daal ba bala mu ñëw rëcc xam nga gars yi la ñoo occupé nag mu ñëw rëcc moom lépp lu waaye bëgg xam ci wàllum ginaar incha allahu bi ci commencement bi ba ci fin bi ba ci wàllum njóobeen yi lekk geeg noonu li liñ ci soxla ñoom dinañ fexe daal ba ba ba wan leen ko nañ jox aussi kontagam képp koo xam ne nii am nga si dara loolu foo toll foo xam ne ñu xëy na excès gu ñu foofu ci émission yi wala passé nañ ko te mu te leeru la nga mën ko woo directement via whatsapp wala nga woo ko appel directement mu mu mu mu leeralal la ku solo conseil et tout ça moom mën na si jàpp bu baax baax baax parce que parce que nag El Hadj réew mi dafa toll foo xam ne nii il faut que ñun ñuy jàppalante suñu biir. am na ñoo xam ne am nañu xam-xam waaye amuñu jot am ñoo xam ne amuñu jot waaye am nañu am nañu tuuti alal am na ñoo xam ne moom yëruñu dara sama genre yi amuñu xam-xam <laughs> amuñu jot <laughs> amuñu alal amuñu dara donc ñooñu bu ñu leen tegul loxo rek du du sotti léegi sama sama mbokku bawal bawal yi ak sama mbokku saalum saalum yi nga xam ne fi ñu nekk dafa tàng est-ce que foofu def fay poulailler dina yomb. waaw sëñ Babacar euh, xëy na li nga njëkk a wax foofu laay euh, delluwaat ak yow. Mm-hmm. mooy lépp loo gis am na jaamu yàlla. Mm-hmm. métier boo gis am na jaamu yàlla eh, yaay xam nag fi jaamu yàlla bi nekk nga dem fekk ko fa wala nga xam ko ba pare dëgg sa tànk mais ñun dañoo jàppale ñu am xam-xam bi gaa fay nañ sun xaalis état fayal nañu mais sunu sunu sunu demu woon am ñu ñu jàngal. doon am xam-xam bi. te euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax nga baal ma rek. dafa kitmaanu xayb laa yadxulul janna. Hmm. c'est-à-dire ñi nga xam ne dañuy dañuy ko joxe. Hmm. ñooñu ba ëllëg yow ma xëy dañ leen lakk parce que seen xam-xam boobu dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy yóbbaale. Ah. <laughs> kitmaanu xayb nii dañ fee bëri de. ah kitmaanu yooyu noonu ñi nga nëbbu xam-xam dafa bari hmm. wala nga am xam-xam soxore ko te man dama jàpp ben affaire c'est-à-dire que man bok kenn ku nek nak ak sa ak sa ak sa vision. mais man dama jàpp ni euh, bi may bi may bi may xam-xam des fois sax sa ko yenn collègue wala sa yenn promotionnaire euh, promotionnaire yi dinañ wax ni yow da nga sauf quoi pourquoi nga jël xam-xam bi nga koy sànni si mbedd bi. pourquoi pas parce que amna ko bëgg mais ñimewul. wala bëgg na waaye xamul. les kooku di lor mu seetaan la tay mu dim nga dimbali ko. ba mu jénn si loraange googu non bul xam ëllëg lan la la borom bi di di di di jariñ si loolu. Mm. tey nag li nga wax si y a des zones chaudes mhm. ah, tudd nga ko mhm. ñooñu comme ay mhm, tamba ah tamba amoon naa xadi bu fay Babacar maa ngi lay nuyu au passage <laughs> eh, Mohamed boobu noonu c'est à dire que euh, daf doon yar bi muy yar mu dugal benn 200 mu neex waaw si zone chaude mais dafay gis phase démarrage te li ma jàngale jàng mais phase démarrage day am lu baax ah, du sauver du def dara parce que guddi bi day tàng day def lépp mais bu demee commencé dugg croissant day sonn léegi nag mujj glace lay mujj jënd mais glace mënu ma dëkk chaque jour Babacar glace mënu ma see dëkk chaque jour man dama gis zone soo yi daal état moom rek moo si mun a moo si mun a jénne éleveurs yi wala mu jénne si bailleurs yi nga xamante ne bëgg nañoo eh, dem eh, eh, investir foofu noonu parce que foofu batiment fermé rek moo la mën a sauver foofu mais bu dee batiment ouvert moom ak ngelaw yàlla bi nga xamante ne moom mm-hmm. ah c'est un air naturel la mm-hmm. nu ko neex lay ñëwee des fois mu tàng des fois mu sedd hmm? mais zone yooyu da ngay xam ni parce que ay zone Tamba day dem ay 30 degré 32 degré léegi bëgg a fekk ci 42 degré ginaar bi ak plus bi tamit ak euh, tàngaayu boppam bi bu boobaa ginar mënu fa dund te phase croissant dañuy soxla ginar bi am aération bu baax parce que danaan la démarrage soxla won aération en général mm-hmm. tangay kasse lañ soxla température bu baax lañ soxla mm-hmm. parce que il y a trois phases wala y a trois stades dans l'aviculture mm-hmm. y a y a y a la démarrage il y a la croissance y a la finition suñ xolé démarrage dañuy soxla 38 degrés Celsius température et de vie. Si on une phase croissante, on sort 28 degrés. Euh, température et de vie. Si on une finition, on sort 18 degrés. Mais on a 20 et 23. a la zone, vous faites que la zone soit la zone tangue. Eh, imagine ñun la 28 degré nga war a am wàcc suuf léegi zone yooyu di atteindre ay 30 degré 32 eh, degré pour nga yar fa day metti Sëñ Babacar. day compliqué waaw ah, loolu mun nga fa yar nag ay bula Hollande. Mhm. wala yooyu parce que yar yaatu na. waaw mhm. ah, mën a bañ doon cher mais bu dee bula Hollande mën na tenir loolu. parce que rési rési am na résistance boobu noonu. d'accord ah. ñu ngi lay jaajëfal bu baax numéro gis ngeen ko noonu affiché nañu ko gars a El moo moog turam la ñuy boole bind ko ci suuf donc <laughs> ñoom dañuy bàyyi lu ne faa ngi dem di wër dañoo mën a jaxase numéro te El Hadj mi ngi noonu turam a chaque fois que ñu affiché turam rek bind nañ numéro ci suuf donc yéen ñi nga ba ngeen si dugg d'abord euh, ci suñu premier numéro suñu premier numéro euh, muy poulailler bi bala ngeen di jënd ay ginaar xool leen fi mu war a nekk d'abord mu ngeen contacter ko mu mu jox leen si ay conseil laaj leen ci biir ba nga xamante ni doo leen juum. Euh, topp leen ñu suñ deuxième numéro incha allah rabi nañ ñëw ci ci ci ci poussin bi d' abord nañ ko def étape par étape par étape ba keroog nga xamante ni xay nit ki mën na toog fu sore sore sori sax muy buy saan émission yi benn par benn rek euh, dina fexe ba mën na gérer boppam pulaayam sans que mu benn problème hélas ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm encore euh, tey suñu suñu prochain suñu prochain numéro si lan lañ nar a wax pour gars yi mën ko xaar. waaw xëy na suñu prochain numéro mën nañoo wax si euh, poussin qualité d'un poussin parce que dañu dañuy wax ni préalable euh, pour réussir son élevage mm-hmm. c'est-à-dire que dafa am 6 six bànqaas yoo xamante ni war na euh, réunir war na dajaloo pour nga euh, pour nga euh, mën a am rentabilité si sa élevage xëy na comme que wax naan batiment tey ku wax bâtiment am na loo fay def mhm. poussin lan fay def kon ñu xaar beneen numéro bi rek ñu jéem fa def poussin di xool poussin bi nan la war a mel ak fan lan ko war a jëlee yan test lan war a def mhm. ñu xaar ñu rek incha allah rabbi